ahousubillahi min asheytaani irajim bisimillahi rahmaanirahim barakatu cheikh al xadim wasalaatu wasalaamu ala nabiil karim sayidina wa maolana muhammadin il makin wa ala alihi wa asaabihi wa xadimihi wa tamkin bokki auditeurs yi ak bokki auditrices yi rawatina bokki jullit yi ak bokki taalibe yi maamaan mbégte rek dikk ànnaat ak yéen ci ni ngeen ko bëgge woon doon ko laaje noonu ma fas ne ñëw nag jéem ci tuuti pour jéem ci tontu ndax cosaan dafa baax te bari na lu yàqu ci société bi mooy wàcc cosaan ku bàyyi cosaan nag danga nga roy loo xam ne si du la amal njëriñ te lu baree bari loo xam ne si dafa bokkoon ci sunu dund yàlla baaxe ñu ko ci ak njàmbaaram akook màggam ak sañ-sañam ñu nekk ca ba nekk ay magi jëmm nekk ay mu kallaf jamono ñëw soppi lu bari kenn ku nekk di wut lenn looy roy te lépp àddina tax ñu dem nag ba sunu culture ñu bàyyi ko fi dem ci culture tubaab bi te duñ leen ci dab mukk ñu jël nag la nga xam ne ñun amuñu ci xam-xam ñu bàyyee ñu ko bàkkaar yi ñu yàlla di tere yépp dajaloo ca loola loolu ci roy lay jóge mbokk yi bu ngeen fàttali ko ay fanweeri at ci gannaaw man mii di wax ak yéen um ma complexé di wax sama bopp baykat laa baykat boo xam ne uma benn profession bu dul bay amuma commerce amuma métier li ma xaw a jàng ci tuuti ministre sax ak tuuti tailleur sax fekk ci yeneen koor yi baykat laa won bu ne ci àll bu xonq ba Saalum bu noor jotee la ma daan def mooy suqi ay fas di ton tonni di def ci ay paan di yanu di dem ca bitib dëkk ba di ko fa sotti foofee ñu koy sotti nag dafay dem ba nekk ab jur bu mag gannaaw bu nu ruujee ba noppi lañuy dem fekkaat ko foofa tonni ko yóbbu ko ca àll ba ca barab ya nga xam ne day sàppi ñu di ko fa sotti moo doon sunub engrais muy li ñuy wax neefarey fas ak yu mbaam ak yu xar yépp dañ ko daan tonni dajale ko fi barab ci bitib kër gi ba mu rëy lool bu noor jotee nag ba nga xam ne ruuj jot na ba na ji ba ñëw di xaar taw ci lañ koy tonni ci ay saret def ci ay côté ci pegg bi yanu ko yóbbu dem ca suuf su sàppi sañu sotti ko ci wàllu mbay nag am naa ci tuuti expérience ñun Saalum Saalum yi loolu dana ma permettre sax permettre sax bu ma demee ba ci biir dugg ci xeeti garab yi nga xam ne moo am Saalum te yàlla defal ñu ci xéewal goo xam ne xéewal googu kenn mënu ko wax bu ruuj masaan jot ab daba ngay wut ab daba dafay yor lu mat ñaari béjjën ci kaw gudd lu mat ci ay 2 yooyu nga jël ak jala jala gi bu noor jotee da nga ko yóbbu ca tëgg ya ca geegi new jox leen ko ñu dàggil la ko nga yor ci ñaar ba ñett nga xam ne bu la ko dàggalee ba nga def ko ci bant bi kenn ku ne téye benn bu ruj jotee ñu daldi dem ci àll ba bu fekkee am mborongle la li mooy fu am lu mat ñetti at fuñ bëyul nga xam ne ab ëllër jëru fa ñax ma di fa sax ngeer ma màgg dijj lool te ngeer a ngi ci ngigis a ngi ci ak yenn xeeti garab yi nga xam ne ma ngay doon ci biir toba lu mel ne ngéejaan ak lu mel ne kel yooyu yëpp a ngi ci biir suñ demee nag léegi nag ba gaj gi ngeer mi ba ak xeet ya ci ànd yëpp ba mu àgg dañ koy ñaari béjjën yooyu ci kaw nga koy dajale boo ko dajalee def benn jal defaat benn jal defaat benn jal ba tool bi jeex nga xam ne bu woowee ca loola bu noor bi jotee boo ruujee ba mu wow ci ngay jël gattax waaye laata ñu ñëw ci jum bi boo ko daggee ngeer mi ba pare ñax ma fa nekkee da ngay jël ëlleer bay loolu la ñuy wax bayt bayt nag lu gaaw la ndax da ngay fil rek muy damm boo filee mu damm nag ba ñax mépp daanu euh, nga daal di wut sa gattax dajale ba mat ab takk nga yeew ci pegg bi yeewaat fi ci topp yeewaat fi ci topp di jël ga tax di ci roof ba mat 2 mètres 3 mètres ab jum lépp ga tax lay doon nga xam ne boo demee ci àll ba nga ruujoon ba noppi da ngay jël as ñax lem ko ba mu lemu nga roof ko ci taatu jalu ngeer bi nga jaloon kos almet teg ci xool fi ngelaw li jëm nga tàmbulee foofa nga xam ne ngelaw li da koy wal ba mooy tax bu lakkee du des waaye boo ko contraire ak ngewale rek day lakk ba pare desaat ay bant bant yooyu nag fi mu toll nii ab liggéey la laajaat soo ko lokkatee ba ngeer mi nga ruujoon lépp jeex nga daal di jël gopp bi bayti ñax mi boo ko baytee ba pare ma mën a jël radu mais radu bu fekkee radu loxo la day yéex dafa am benn saaru machine boo xam si ci fas nga koy lonk ñu koy wax usine usine danañ ko ko def waaye yeneen machines yi ci desit danañ ko def muy araara li ne wax araara nga xam ne benn benn benn yax lay doon boo xam ne si da nga def ëlléer bi mu yor benn benn ruu ci kanam moom lañuy ñuy gerte léegi nag raara boobu yi wala usine bi boo demee ci tëgg yi dañ la defal euh, benn weñ goo xam ne dana mat un mètre cinquante su ko defee mu wut feer lem ko ba mel ne rado mu suude ko ci nga xam ne dana mat mat fukki fukki baarak ñaar dana ko mat ñu suude ko ci su ko defee nga ñëw monter ko ci usine bi nag léegi lonk ko ci fas wi li nga bayte woon nga di ko ko rato boo doxee doxe ba mu lañ ci ba fees nga teg sa tànk yëkkati ba bant yi duñ ci topp nga tegaat nga xam ne boo ko defee rek bu tool bi matee ay ay ay ay jal lay doon yoo xam ne aw ak rang lay doon soo paree daal di jël almet daal di teg taal su ko defee àll boobu daal di leer su ko defee àll bi nga xam ne nag moom du mborong li fi nga xam ne du mborong li xam ne dañ koo bayoon gerte ngeer ma fa nekk moom it dañuy dem ruuj ko gajji ko jël daba bi te boo koy gajji nag na ngay koy jam mu dem ba ca suuf dagg but ba ca suuf waaye boo ko daggee ci kaw noonu rek yax yi ci kaw lay ne nga xam ne ëllëg bi bu ñëwee larmet bi bu ci laalee rek mooy wax fas mooy tax fas wi di taxaw wala arna yi dagg wala li nga xam ne mooy ràng mi it fi nga xam ne moom nga ñaw lonk ko ci fiil gi di dagg wala machine bi xaw a weng ba gerte gi di tuuru moo boo ko gajjee ci kaw noonu lay mel boo demee ba toll ci war a bayte it yor gopp di bayit boo àggee fu mel noonu pour ñax mi ci biir nga bay ko yax yooyu moo koy téye mooy tax sa ëllër bi di maax moo tax bu ñu masaan dem dañuy yóbbaale dékk ko gajj ba sa ëllër maax da ngay daal di dem boo demee daal di wekki ëllër bi teg ci kaw dékk bi jubbanti ba jubbanti nga daal di ñëw commencé waat su ko defee nag bu bàq bi too bu noor bi jotee ba nga dagg ngeer mi nga xam ne da nga faa bayoon gerte nga xam ne dugub nga fa war a bay nga ñëw foraasu def euh, diggante trace ak morom un lay diire nga def ko daal di bàyyi noonu bu yàlla ji tawee kook jooju dugub mooy gën yi nga xam ne danga koo tex tex mooy nga bàyyi ba nawet bi ñëw nga boole gerte gi ak dugub ji jiyandoo jël dugub ji ji ko ci bàq bi jël gerte gi ji ko ca ba gerte moom ci bàq lañ koy moom kenn du ko faraasu dugub nag gàcce ja ca gën mooy ji nga faraasu cim noor su ko defee nag boo ko defee noonu mu tàmbali génn nga gis tracé yi mu sax su ko defee nga ji sa gerte ba pare boo ji gerte gi daal di raadu raadu it araara na ko def accidental machine accidental yi daanañ ko ko def yi nga xam ne ñaari foogu lay yor ci gannaaw nga xam ne ab crochet ab taabal ngay teg ci digg bi yor ñaari crochet yor am pax nga xam ne boo ko këppee ci kaw taabalu machine yu accidental bi ci gannaaw dangay jël foogu yi daal ciy def rof yi roofee daal di seere rek la ba mu tolloog trase gi bu dee da ngay daa nga raado raado boobu daan nañ ko def waaye bu dee nun saalum ab araada la ñuy wut bi ñuy déqee jël ëllëg bu mag def ci nga xam ne boo koy raado ci bees bees bi danga koy da nga da koy sëkkaale ba mu def am pax pax moomu boo ko sëkkee ba nga xam ne gerte gi sax na ba jóg ci kaw rek boo dikkee di ko bayaat ba yor accidental wala usine ba réglé ko ba mu tolloog tracé gi loolee mu jaloon da koy wàccee bu ko wàccee nag day ànd ak ñax ma saxoon su ko defee ñax moomu day dee mooy tax sab tool du booy du bari am ñax soo raado ba pare daal di dem ca toolu dugub ba daal di koy bay mbay mu njëkk tracé gu ne da nga ci jaar ñaari yoon boo bayee ba pare daal di jël sa gopp topp nag dugub ji di ko wolli foo dem fekk mu yor ñeent car ba juróomi car nga wàññi ko mu des nga fàkk ko boo yoree engrais da ngay ñëw wërale ko ci noonu loolu mooy tax dugub ji bu foccee am ay gub yu baax su ko defee boo ko bayaatee wolle ko jaaraat ca benn yoon foofu moom daanaka day daal di baax waaye gerte gi nag da nga ko da nga ko raadu da ko xotti xotti bu njëkk ñaareelu xotti yi da nga ko def mooy tax tool bi gën a set su ko defee nag boo ko raadoo ba pare ba xotti ko da ngay moom it jëlaat sa gopp boobu machine duutu ci am yoon ngeen topp gooñu gerte gu ngeen gis am ñax nekk fa nga di ko fa def ñax gi gën a bon ci gerte nag mooy ndijji bopp bi ñuy wax ndijji bopp boo ko gisee reen bi day tal ci suuf te fu doom bi war a génn rek da ngay gis bu fa matee ñaar ak ñett da koy da koy tëye rawatina nag gerte gu mel ne gerte law ak lu mel ne baamat ak ñax gu mel ne booy faal ak ñax gu mel ne salgoof salguuf moom ñaare ci tool yi sàpp yi lay lay lay faral di am su ko defee nag boo jëlee gob bi bayte ko ba mu àgg nag ba mu set wecc nga jaarale yaat ci machine bi xotti ko nag bàyyi noonu nag léegi nag ba déqi jot nga ñëw déqi ko euh, boo ko déqee ba noppi nag ngeen call ko jël gerte gi topp ci sëgg for liñ déqi yëlëb boo demee ci taatu ngeer gi nga xam ne gerte gi sax na ci biir da ngay bittër ñi ngeer gi buddi ko yëlëb ba mu set wecc nga tar ko fee bañ ko boo ko taree ci kaw am ñax mu sax nag bis boo koy naaf dafay des ndax bis boo naafee jël roq bi roof mu duggaale ci ñax rek call bi du jóg waaye gi ci gën mooy da ngay koy def fu set boo ko taree da koy def fu set yëlëb ko ba suuf di ci am boo ne ko caseg roq bi rek lépp dalay topp su ko defee nga teg ki saret ba mu fees ngeen dem naaf ko bu ngeen naafee daal di santaane bàcc wala ngeen bàccal ko seen bopp wala ngeen jox ko firdo yi sas leen ko buñ bàccee nag ba nga xam ne kii ne ñu daal di jëri ber ngooñ ma nee ber gerte ga nee nga jël say saako nag saako yi ñu daan wax ñukk ak saako yi siisal saako yu ñukk mooy saako boobu daal di def ceeb te daan def rëdd bu werte bi ci digg bi boobu muy ñukk waaye dañ ko daan yël nag yël yël mooy da ngay jëlaat beneen saako dagg ko fi saako bi yam nga sofaat ko ci mu kawe suñ ko duyee gerte kii jàpp fi kii jàpp fi ngeen sëtt ko sëtt boo sëttee ba gerte gi wàcc ngeen daal di koy nom jël xànc gi mbesaaw mbesaaw lañ daan wut xàncug mbesaaw dañ ko daan dem ci àll bi di ko di di ko di ko gée même basaab bi sax daan nañ ko xànc moom buñ ko nomee moom lañ koy yeewe boo ko yeewee ñaari yoon wërale ko daal di fas tëral su ko defee bu saret bi ñëwee nga sarse ko saret bi nag fukki saako lay mën a jël ndax da ngay teg ñett ci kanam teg ñett ci gannaaw teg ñaar ci kanam teg ñaar ci gannaaw daal di yéeg boo dikkee daal di sotti ci cëpp gi su ko defee bu dee dugub ji yéen ñi da ngay góob boo góobee daal di dem xapp xapp xapp gattax gi rangale ko ba mu nekk ab jàgg lu mat 3 mètres wala 4 mètres ci kanam eh, su ko defee nag boo góobee leew lañ daan def leew nag boo ko mosaan def da ngay ñëw tàllal sa ñaari loxo su ma jëlee paaka bi wala ngóobaan gi bu ma góobee dagg dagg dagg ba sama loxo fees ma tëral nga taalal say loxo ma lal ko ci lal ci wet gee lal ci wet gee ba nga xam ne agsi na ci sab dënn nga daal di dox ndànk nag dem ba ca jàgg ba boo demee nga séxéer ko teg daal di jekkal bopp bi ba mu jekk boo tegee fee ba jàgg ba fees da ngeen di xapaat bi nen jaag yooyu nag bu ngeen góobee ba ngóob mi fënd li ñuy wax fëndal boo fëndalee ci ngay dem nag gori sam fuuf fuuf ak garab la goo xam ne ci da nga koy dem gori suuf yu naat yi boo ko goree ba matub sars nga ñëw indi ko boo ñëwee ñu sotti ko ci dóobaale gi wala seesum gi su ko defee bu nu demee déqi ji ba ñëw gerte gi buñ déqi ji ba càll ba ñëw bu ñu wàccee ba julli ji dañuy dajaloo ñun ñëpp nga xam ne dëkkandoo yeeg ñëpp dañuy ñëw kenn ku ne ñu jox la bang nga toog ñi mën a taxaw taxaw ñiy ràbb ràbb liñ goroon lépp def ko ay ay fuuf boo ko ràbbee nag ba pare nag da koy lem jël ndox sotti ci wala nga dugal ko ci paanu ndox bu ngeen xëyee nag yooyu ngeen di topp ci dugub ji boo demee par ñaar ngay lal boo lalee ñaar kii di jël dugub ji di teg fee kee di teg fee ba mu kawe kenn daal di ñëw jàpp ñaari ñaari ñaari fuuf yi taxaw euh, tiim kii bi kee taxaw su ko defee nag léegi kii di teg fii kii di teg ba mat ab sabaar ngi yéen ñaar yi nga xam ne yéen a doon teg ngeen ñëw daal di jël kee nekk fee kee nekk fee kii xëcc kii xëcc ba mu dëgër ngeen daal di lem daal di daal di nuuxat dugal demante bee def ko bu ngeen pare ngeen jàpp sabaar bi yéen ñaar ne ko cas daal di sëpp jël peel bi tapp ba mu àgg sabaar yooyu nag moom tamit moom la ñuy jël teg ci saret bi boo ko tegee saret bi daal koy indi ci dàgga ji boo indee ci dàgga ji foofu am na ñu koy jaagal nga xam ne moom it ab jaag ngay defaat foofu boo xam ne boo dikkee jaag bu mag lay doon day mat ay 10 mètres nangam nga xam ne day altitude bi ci kaw day mat ay 2 mètres nangam xam ne dañ ko ci teg nga xam ne ku ko romb xam ne yow mi am nga am nga dugub léegi nag loo foofee machine bojj bi mën na ko faa fekk bojj ko wala nga ñu tibb ko yóbbu ko ci sàq ma euh, garab yi nga xam ne nag mooy garab yi yi am saalum ci yi ma xam am na kel kel foo ko fekk ci ab jànj lay sax bari ay car dana am ay doom waaye xam nga noonu baykat yi li ñuy lekk ab xiifa ñu koy yóbbe waaye ay doom la yu xaw a saf suukar tey xaw a xonq am na it aloom te eh, kelmi it da nga ko xànc bu la neexee xànc ko boo xàncee xànc gi xàncaat ko ci xànc gi ci biiraat ñëw jël sab ndox sa boolu aluminium wala sab kalamba def ci jël ndox def ci di ko di ko jaxase di ko jaxase ba muy liddiku liddiku googu boo doon wëggu fas tey ba def ko dafa jox ko paanu ndox sotti ci kel mi tooy ji ne woon ci biiru fas bi yëpp day génn même yow boo ko seggaatee mën nga koo naan boo ko naanee tooy ji ne loolu lu yàlla defal la kel mën na ko bu dee lu mel ni bépp bépp ci la ñuy wute laalo bépp da nga koy xas xas mooy da ngay wut lu mel ne saw xepp wala lu mel ne saaru ngoos-ngoos rek lu dëxaw a dëgër tuuti boo ñëwee wër bépp gi fenn fu ne nga ne ko ba mu ba bam ba mu xasu bu xasee nga ubbi ko boo ko ubbee def ko fi def ko fee gis nga xas googu nga ko xas gor googu nga koy gor bu ëll bu subaa rangooñ googu mooy génn mooy doon laalo am na ci biir yooyu day day pax mi nga mi nga mi nga gor ci garab gi day fees ba day def ay kii laalo ju weex tàll lay doon su ko defee nag nga dem daal di koy akkati daal di jël ab sër dem ca naaj wa lal ko ca weer ko ca ba mu koŋ boo dikkee nga jox ko sa yaayi daara wala nga jox ko sa yaayi bopp ñoo leen daan wutal laalo nga xam ne dawuñu dem ci marché bi di ko jënd loolu ci bépp lañ koy amee laalo yu ngu it am na dimb it am na dimbu. ab doom lay doon boo xam ne si ni doomu pom toll lay toll bu dee ñun saalum nga xam ne garab gi fi la ëppee eh, man nga dagg doom bi bu ñor bi lekk boo lekkee doom bi du la wàññi dara am na ay saal ci biir yu ndaw comme ni màdd mel daanaka noonu nga koy lekke ni nga koy lekke bu dee doom bu ñorul bi amoon nañ ci xarale goo xam ne si daanañ ko def yàpp yàpp xam nga yàpp moom du yombul woon ay mbëtt nga daan mën a jàpp ay barak ay jaar yooyu ñun baykat yi ñun moom lañ daan lekk ay mbëtt waaye bar ay jaar yooyu la même suñul sax dañ ko daan lekk suñul sax dañ ko daan rëbb di ko lekk su ko defee mbëtt yooyu nag bu noor bi jotee xam nga dañuy loof dugg ci taatu garab yi ba seen maw li ñuy wax maw waaye bu dee mbëtt mu suur nag lekk ci soccet yi ba nga xam ne day day day kii bu duggee ci mpax mën nga ko faa fekk jàpp ko boo ko jàppee reddi boo dikkee ay togginu léegi wi ma gis nag du togginu bëtt moom ndax indi ko ci tàng tàng bi daal di waas ak ndox mu tàng daal di togg boo ko defee rek lekkoo mbëtt mbëtt boo koy lekk dëgg dëgg boo dikkee ci xorom nga koy def ndoxum xorom raxas ko ci bam set bu bi ñi ko dindi xeñ ji teg nee dégg nga dagg bopp bi dindi wey yépp maanaam raxas ko ci ndoxum xorom mi bam set wecc nga dem ci ak léeñ gi ngay weer yére yi fekk foofu nga ko ba dere kaw bi dara nekkatu ci comme ni ñu foofee jën nga dem nag léegi ca ak léeñ nga wékk ko ca nag ñaari tànk gannaaw ya ngay wékke ca kaw li ci suuf jëm suuf nga xam ne ndox mi day set day ruus ba wàcc naaj wi lakk ko ba mu wow bu ko lakkee nag ba ca suba sa nga koy jël nag def ko ay daggit daa di koy togg boo ko boo lekk gerte nag moom boo koy lekk moom faaw nga seen waa makkatal mu karam moom kooku moom jar na lu waaw kooku mbëtt nu noonu lañ koy toggee da koy da koy ségal fanaanal ko ba suba nga door ko def ay daggat togg ko bañ koo yàkkamti kooku moom boo koy lekk da seen waa màkk moom ndax bégte su ko defee dimb googu bu nu ko jëlee jox jigéen ñi dañ koy xar xolle xob bi ci kaw def ko ay dagg dagg yu sew comme ni ngay xare pom rek def ko ay xar yu ndaw fekk xeet ga ko ba mu set nga def ci ndox raxas ba mu set kooku gis nga boo ko rosiwaale xaw cee def tuuti tamaate da koy jàpp xonqal ko ba mu nuroog ndawal nga togg ko ba mu ñor nga seppi ko boole kook ñeex bi ñeex bi nga xam ne cere ba ñeexum baase lay doon soo ko ci boolee fajar gi boo ciy ndékki cere ji ci boppam laa la leen bëgg xamal cere ji boo ko siimee rek def musiba waaye cere ji boo ko siimul jël ñeexum baase mi ànd ak dimbu ji def ci moom it boo koy lekk di seen waa màkkatal mu karam moom loolu moom leer na ma loolu xarale googu suñ borom defaloon nañu nga xam ne da nga daan dégg sax ñuy wax naan dimbay ndawal dimbay ndawal boo tibbee bët ba tibb ba taawu as ñeex loolu baykat yi moom xam nañ ko dimbu moom lekk naa ko ba tey waaw buñ masaan namm yàpp dëgg-dëgg amatuñ mbëtt amatuñ ay baraki jaar moom dimbu la ñuy wut rusi ko dégg nga ba defar ko ba mu xaw a xonq noonu ak ak ak ak tamaate yi ak gerte ñeex moomu boo ko defee ci cere joo siimul rek cekkeen yi danañ la ñaanal nga gudd fan kon dimbu daa nañ ci def xare la gu mel noonu alam it nañ ko lekk alam comme daanaka nii doomi raisin yi toll rek waaye moo koy ëpp tuuti day ñor nag moom it ba xonq nañ ko wat ak sump daa nañ ko nañ ko watt di ko lekk xeeti garab yooyu am na was-wasoor was-wasoor sax moom du garab gu mag waaye garab gu ndaw lay doon comme ni ngeer toll am na ngéejaan ngéejaan bant yu bari yi ministres yi defar bu dee bantu géejaan moom mooy bant bi gën a dëgër am na yit sump am na sump am na li nga xam ne moom la ñuy wax kel kel waxoon naa ko ca njëlbéen nga am na guy am na yu ngi gis yuy màgg ba nga xam ne day tool ne garab mooy yi wër déeg yi déeg yi waaye bu dee yi ne ci biir tool yi ñuy bay moom daanaka balaa màgg ñu rooj ko su ko defee daal loolu bokk na ci li ma xam ci wàllug mbay su ko defee bu noor bi masaan jotee nag noon moom amuñu lu ñuy def suqi fas lañuy def di ro di sotti ci àll bi ak euh, dajaloon it cotisé di naan ay ataaya jamono jooju it daanañ dugg di rëbb ay suñeel ak suñeel nag boo ko waxee nit ñi dañ leen jaaxal ndax dégg waaye système la système la suñeel boo ko jàppee day banku boo ko bankoo nag boo ko bëggee rey aw dénk ngay jël jël suñeel bi teg ci teg ci sa tànk booy bés nga gis tànk yi génn nga jàpp tànk yi ñaari tànk yi rocc jox kee mu téye xëcc kee rocc ñaari tànk yi bopp bi génn nga daal di rendi boo koy lakk nag suñel boo ko joxoon ñu bari mënuñu ko lakk danga koy teg waaw seng ngay wut boo wutee seng bënn ko teg ko ci yënde bi déedéet kii bi nu mu tuddati eh, kii yi teg ci nii nga xam ne ngay wut ay bos di ci def ngay galan kii yi ci digg bi taal sawara bi nga gis muy génn ci kaw seng nga teg ci signal bi fekk lakk nga dégg ba léegi kii ba nga xam ne léegi xamit ji moo nekk ci kaw boo ko tegee ci kaw taal boobu da ngay gis diw yi ni muy tuuroo kooku boo ko lakkee ba pare moom it boo koy lekk seen waa màkk moom waaw su cuñal yooyu yëpp lekk nañ ko kon nag jamono day baax ñuy xam ne nag noonu ay africain lañ te dañoo am culture dañoo am cosaan culture rek cosaan dafa baax ci nit ki nit ki waru koy fàtte seen saa waaye bëgg a bokk ci tubaab yi tax ngay tubaab tubaab doog sol seenu colak ñun ay dàll sax yàlla daf ñoo wutaloon nañ koy defee nga xam ne bu dawuñu jënd dàll importé dawuñu jënd dàll yi nga xam ne usine na koy defar pënub pënub saret ngay wut rek xaar ko boo ko xaree léegi daal di daal di koy lal boo ko lalee léegi daal di kuppati lu tolloog sab tànk boo ko kuppatee léegi daal di bënn ci kanam bënn ci ñaari pegg yi tollook say doojur yi su ko defee nga jël deru baag nag deru baag boo ko jëlee da nga koy da nga koy da koy seel boo ko seelee ba mu tolloog li nga soxla bën bën bi féete ak sa doojur nga koy roof mu génn ci bitti nga rocc ko boo ko roccee ba mu am la nga jot roofaat ko ci geneen wet gi su ko defee ñaar yi day génn su ko defee nga xar ci digg bi dem ca kanamu kanam nga it daal di jël ak moom it genn élastique def ko ak mbakkan roof ca mu génn nga daal di wut beneen boo xam ne si nag day jaar ci ñaari bën bën bi yu wër tànk bi dàll yooyu dàll dàll yoo xam ne dàll yaa koy fabriqué yaa koy créé te daray importé du ci nekk dàll yooyu daa dañ ko sol bu ma boo masaan yi gerte sax da nga gis fi nga dëgg da nga koy gis garanté te da dégg du ko jam du dugg ci biir gannaaw bi la dàll korosé xew ak caaye ju rëy rëy rëy rëy su ko defee ñebbe it am na solo nit ñi farasoo dugub lañ ko ni ñuy bay dugub lañ koy bay tracé yi ñooy tolloo ñebe ji yëpp bu ñoree xam nga day am yoo xam si felax lay doon am ci yoo xam si day doom yu dijj lay am yu dijj nga xam ne boo ko daggee yooyu lañ daan def ñar ñar boo ko toggee xorom ko boo ko yekkee kenn ku nekk tiim sol sa caaya yoon sa xaftaan kooku it waa màkka da ko séen waaw foofu it da nga séen waa màkk ndax boo ko dafay neex lool yooyu ay xeeti lekk ak yi xeeti cosaan la yu neex su ko defee la ca des nag moom danañ ci togg ay mbaxal waaw mbaxal moom bu nawet bi door a jeex da nga gis sëm ñi boo ko toggee boo koy kii euh, loolu ñuy wax mbaxalum salum da ciy xaw a baax kon daal ci cosaan ak basaab it basaab it daan nañ ko bay baax na trop basaab bu xonq bu weex kooku ci diggi diggi gerte yi nga xam ne ci ngay bay law wala lu mel ne gerte yi yeneen gerte yi mooy tax moom da daan màgg bay bay tiim eh, ñaari tool yi nga digg lool xeeti gerte yi nag eh, fure am na SMA am law am copp am law ak copp gerte copp noonu ñu tuddee tur wi noonu lay noonu lay mel day taxaw ne ñu mucc di digg bi ren fure nag moom dafa wex te moom la waŋ yi gën a bëgg ndax dafa bari diw gerte diw gii ngeen di gis gerte fure ci gën a ay daanaka suuf soo ko bay sax moom boo ko ca tegalaatee suuf sa dana sàppi bu dee law nag moom suuf sa nooy te tracé yaatu ndax law gi moom fu fu lawtan gi dem rek ay doom gerte lay doon gerte nag bala nga xam ne doom yi dana danga dana meññi ci fleur yi nga koy xam ne fleur yi demee bay tortoor tortoor yooyu nag tortoor gu ne ab gàjjan lay doon day mujj sampuwaat ci suuf bu sampoo rek ay doomi gerte lay doon gerte law mooy gën a am vitamine te day day day day day sakkan foo ma amee ci fure juróom benn saako bu dee law ñaari saako nga ci am ndax gerte gi day sew waaye mooy gën a dis kon mbokk yi nañ taxaw foofu incha allah di leen jox dig daje ci beneen waxtaan jërë ngeen